daanaka ñoom ñëpp ñëw nañu wuyu si woote gi le secrétaire yi daal di bàyyi seen bërëbu liggéeyukaay ci ajjuma bi le ngir màggal bés biñ leen jagleel lépp ñu teg ko ci thème bu am solo. li ci gën am importance mooy formation bi d'ailleurs gis ngeen thème bi ñu jël tem bu am importance la boo xam ne day participer bu baax ci ci euh, évolution liggéeyu assistante ndaje buy tax ñu toog xoolaat waaye tamit yokkat seeni xam-xam rawatina nag jamono ji nga xamante ni li ñuy woowee xarale yu bees yi dugg na ci seen liggéey. léegi ak nouvelle technologie ñuy wax affaire digitalisation di wax affaire numérique numérique boobu nag dañu bëgg ñun intégrer ci suñu formation pour que ñëpp vraiment mën a am xam-xam pour mën a utiliser numérique yi parce que numérique yi logiciel yi ci la bokk euh, machine yi ci la bokk yooyu yëpp. bu fekkee ni consultant bi wax nañu ko dinañ mën a xam naka lañ koy utiliser suñu biir lieu de travail. la yu bees yi doon ab yokkute ci liggéeyu yile ay jigéen ñi seen xam-xam màcc ci liggéey bi lay di jigéen yi ñu bàyyi seen xel bu baax a baax ci li nga xamante ne moom la leen liggéey bi sas. seen liggéey li ci ëpp mooy euh, euh, ëmb ëmb ëmb sutura bi nekk ci biir euh, société bi. liggéey moom li ci gën a am solo. mooy ñu defar ko ci ni mu gën a gaawee ak ni mu gën a selle xarale yu bees yiy ñëw da lay permettre nga mën a def loolu c'est-à-dire que euh, information yi ñëw nga mun koo jàllale ci ni mu gën a gaawee. yaatal ak waxtaan bi ñu amal ci biléb ndaje tax na ñu saytuwaat bu baax a baax xool càmbar li nga xamante moom mooy seen ip liggéey bés bile doonoon ab poroxndal pour assistant yi ak secrétaire yi toog ci benn table ñu waxtaan ci seen ëllëg. ci njëriñu ñëpp